mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm te jiital nuyoo bi ak ziyaar boobu ji Cheikh Mamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom defal ko gudd fan ak wér ba naal yi nga xam ne yéenal na ko liggéeyal islaam ak maamam ju baax ji sunu boroom defal ko ci kàttan ba def ci lu kawe njortam ak mbooleem mbokki jullit yi ak mbooleem mbokki taalibe yi leen ndokkeel bu baax ci weer wu tedd wii ñu nekk te ñu nekk ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne ci la ñuy dàkkalee letul xadar di guddi goo xam ne moo gën junni weer ñu di koy dàkk ci fukki fan yi di ñaan sunu borom defal ñu ci feex bañ dundal ko ca namu mu dëppook na ko bëggee te defal ñu ci ay yiw muy fukki fan yoo xam ne nag mooy fukki fan yi nga xam ne ci la ñuy wax na ci la ñuy goreel nit ñi ca sawara kon ñu nammaat pas-pas yi bu baax te gën a feddali yéene yi day ñaan sunu borom defal ñu ci tawféex ba dundal ko ni mu ko waxee ne koo xam ne dundal na buddi koor ci gëm yàlla ak teewlu sunu borom jéggal ko la jiitu woon ci moom ak xëy na di mujj di fukki fan yoo xam ne it ci islaam euh, ni ma ko waxee ci lañu dàkk guddig laylatul xadar waaye di fukki fan yoo xam ne ci yoonu murit ku ne xam na ne sëñ bi euh, njort nañ lool ne ci la jot wirdul maxuus ni ñu ko waxee ci ñaar fan ak juróom-benn yi xëy na ak it yoonu murit moom it njort nañu ci la ko sos ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xew na ci guddi fukki fan yu mujj yi te mu bokk ci li muy junj ci wakaana xaqan naan yool bi nga xam ne daal suñu borom diggoon na ma ko te ma ko doon sàkku ci moom jox na ma ko ci weeru koor kon nuy ñaan sunu borom defal ñu ci tawféex ba ñu daje ceeg yool yooyu yépp euh, ni ngeen ko xamee ba weer wi tàmbalee ba léegi daayira muxaddamatul xidma mi ngi dundal ruu yi di berndeel tamit nit ñi di leen indil ay waxtaan yu am solo ngir fàttalante sunu diine ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baaxoo defee ak ni ko sëriñ bu mag bi taan mi daan defee di dundal koor gi ki noonu ñu ngi koy dundal fii ba tey di ñaar fukkeelu waxtaan wi ci ñaar fukkeelu fan bi saa su ne ñuy indi ay tomb yu am solo yoo xam ne yenn yi ay bind lay doon yu ñuy ballaloo ci fiq yenn yi ay waxtaan la yoo xam ne ay tomb la yoo xam ne dafa laal suñu ak dund yenn yi ay fatawaa la tey jii nag mu mel ne indiwaan nañ beneen tomb boo xam ne ci lu laal dunduk nit ñi la bokk te bokk ci ñoom muy liñ naan jumtukaayu jokkoo yi xew ak jan jeexit la mën a def ci soppi jikkuy nit ki bu ñuy jumtukaayu xarala yu bees yi xel dana dem ci lu ñu naan internet internet muy loo xam ne euh, daanaka nit ñëpp a ko yor ci seen téléphone wala seen kër mu bokk ci loo xam ne kenn mënatut a dem daanaka saa moom muy loo xam ne lu fi ñëw la lu bees lool daanaka ñi nekk fii ñëpp ku ci nekk yor na ko ci ak jollosoom lu ñu naan téléphone am loolu yi nag baax na ginnaaw nit ñi saa suñ xëyee walla saa su nekk. ñi ngi ci nab na bi muy jël sunuy waxtu yu baree baree bari dana jar nag ñu xam taxaw seetlu boo xam ne jumtukaay googu yi ñuy nekk muy internet ca banqaas bañ cay wax réseaux yi muy li nga xam ne moom moo lëkkale nit ñi ngir ñu mën a xamante mën a jëflante fu waay nekk ci àdduna bi nga xam ne léegi daanaka àdduna bi ak kër la yi ci des yëpp ay néeg la rek dëkk yi ci des frontière daanaka amatul te loolu internet rawatina li ñu naan réseaux sociaux yi moom moo ko indi loolu nag moo tax muy tomb bu am solo boo xam ne moo tax daayira Muxaddamatul Xidma gis ne ginnaaw mi ngi laal dund nit ñi am ñoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo jëfandikoo bu am solo am na ñooñ mu ngi soppi seen i jikko jëme leen ci ak baax am ñooñ mi ngi soppi seen jikko jëme leen ci ak noonoo jëme leen ci ak xasante ah, dana baax nag kon ñu taxaw am ci ay seetlu rawatina nag dañ naa ne influence ak manipulation mooy ñi nga xam ne dañuy def jeexit ci yow ak ñi nga xam ne dañuy fexe ba wëlbati la ba nga am ay comportement wala aw dundin woo xam ne da nga ko def xëy na du ma dugg ci thème bi dëgg-dëgg waaye ngir gën leen koo jegeel rek daanaka boo xoolee ci jamono jii ku ne xam ne ne euh, ci xew-xew yi Sénégal yeeg fi mu toll ak àdduna bi gis nañ ni nit ñi di gën a utiliser réseaux sociaux yi rawatina influence yi ci am ba ñenn ñi mu tax ñuy seen diggante yi ñu war a am ak seeni kilifa mu des am ñoo xam ne seen diggante yi mu war a am ak seeni i mbokki taalibe mu des am ñoo xam ne seen diggante bi ñu war a am ak seeni dëkkandoo mu des te lépp rek mu ngi jóge ci ku leen di influencé wala ko def jeexit ci ñoom ba mu tax ñu soppi seen jikko yooyu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na sunu waxtaankat bi ñu indi tey dana ci indi ay tomb yu gën a leer kon muy waxtaan wu am solo woo xam ne jamono laaj na ko ki ñu koy defal nag di almufattish inspecteur Cheikh Ahmadou Mbacké Niang moom Serigne Mouhamadul Mamoun Niang di boroom xam-xam bokk ci dëkk bi rawatina kuy yëngu ci wàllu luy jëmale am xel eh, kanam muy yare ak jàngale mu jànge fii ci dëkk bi ba am fi eh, lijaasa yi mu war a am génn wéel am njàngam ba am licence ci chariatul islaamiya ci réew mi ñu naan Maroc ginnaaw bit mu àggale am njàngam ba am liñ naan masteur ci xulumu tarbiya muy ni ñuy yaree nit ak yu ñu demee ci université yu nekk Amérique ci banqaas bi nekk fii ci Sénégal ni ki noonu inspecteur la ci wàllu yar ak jàngale loxatul arabiya liggéey na ci ay inspection yu bari mooy ñi ŋànk wàllu njàng mi ci région yi lu ci mel ne Kédougou Linguère ak inspection académique bu Diourbel ba ni noonu nag ci lañ ko indee ci université wala mu jàmma di complexe bi lëkkale ay jàngukaay yu bari ci Cheikh Ahmadul Muntaxa sumb ko fii ci Touba muy mu jàmmax Cheikh Ahmadul Xadim bii nga xam ne jàng ak yar lay liggéeye foofu la nekk niki noonu it daayira Rawdu Rayaahin moo jiite banqaas bi nga xam ne moo jëm ci wàllu xam-xam ak luy jëmale xam-xam kanam muy commission culturelle bi kon bu ñu ko joxee waxtaan wu mel nii jàpp naa ne jox nañ ko ku ñu ko war a jox kon ñu koy ñaanal suñu borom rek mu defal ko ci tawféex te ñu ko dégg ak topp ndax thème bu am solo la boo xam ne ku ci nekk ci ñun rek war naa yoru big ak kayit ak xerew la bu baax ngir xam jumtukaay yooyu nga xam ne saa su ma xëyee wala su ma yendoo danaa ci dugg muy réseaux sociaux yi nan laa ko war a jëfandikoo ba bu may soppi tamit damay soppi jëme ma ci jikko yu baax waaye du ma soppi ci jëme ma ci yeneen euh, jikko yi ci des mu war a jàngat tomb bi nag ci xamal ñu lan mooy réseaux sociaux yi bu ñu ko waxee muy mbaali jokkoo yi nga xam ne day lëkkale ay nit ban njariñ la am ak fan ak fan la jaar biñ ko sosee ba ni mu agsee ci suñu jamono ji ñuy waxe beneen tomb bi ci des nag dana danañu xamal yan moyen la réseaux sociaux yi am maanaam yan jub lan ak lan mooy réseaux sociaux yi ban ak ban ak ban la xëy na loolu la ci jublu bu ci bu jógee ci loolu nag dana indi ay jàngat nag ci ban jeexit la réseaux sociaux yi war a mën a amee ci jeexit nag xëy na bu ñu ko waxee mooy nan la ñu mën a soppee ci jëmale ci ñu baax wala ci loo xam ne danañu jariñ ci suñu dund niki noonu influence yi ci am ak xëy na manipulation yi ci am yooyu ca jamono mu toll foofu nga xam ne euh, kenn mënu laa wax dayo bi nga xam ne am na ko ci dund askan wi kon loolu la war a fas ne euh, amal euh, tomb bi noonu la ko war a traité incha allah ñu koy ñaanal sunu borom defal ko ci tawféex kon sëriñ bi bismillah bismillah rahmaani wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahabatihi alkiram wa man iqtada bi hadihim ila yawmi ddin jërëjëf sëriñ Abdul Ahad ñoo ngi lay delloo nuyoo di la ziar di ziare mboole mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk ak ñun jotaay bi ak ñi ànd ak ñun jotaay bi ci nekkuñ fi te jaare ko ci jumtukaay yu xarala yi di nuyu di ziare um, uh, waa daairatu muqaddamatul xidma di rafetlu bu baax a baax seenub liggéey li weesu ak li ñu toll di am yaakaare ci liy ñëw uh, muy liggéey bu am solo boo xamante ni uh, taxawoo ko lu yàlla la ñu di ko defee ci anam bu rafet di ko defee ci barab bu yaakaaroo waaye duñu ñu fàtte nuyoo ak ziyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xamante ni mooy eh, jawriñu taalibe yi Serigne Touba yi di ko ñaanal eh, mu gudd fan te am ak wér te naaj yëpp egg ci sago te ñu ànd kook moom ci am ci ngërëmul sëriñ bi eh, ñu koy ziyaare bu baax a baax ci koor gi di ziyaare mbokk yëpp rek ni nga ko waxee tomb bi nga xamante ni mbokk yi sàkk woon nañ ci man ñu weccanti ci xalaat mooy jokkoo jumtukaayu jokkoo yu bees yi ñuy tuddee réseau sociaux yi ban jeexit la mën a am walla ban jeexit lay def ci jikko yi nit ñi muy tomb bu am solo boo xamante ni bu mat di waxtaane la rawatina fu nekk nii ci suñu jamono yi wàllu jokkoo ak wàllu technologie bi mooy xam-xam yu xereñ yi dafa bokk ci suñu dund léegi te du yomb nit ki bàyyi ko xas na dugg ci biir dund gi ànd ak ñun di def ay jeexit yu bari ci sunu doxiin ak ci sunu nekkin yenn yi di jeexit yu am solo yu am njariñ di ñu yombalal dund ki ci anam waaye léeg léegi it muy def yeneen jeexit yoo xamante ni xëy na ku ko mënoon a moytandiku ci lay gën muy jumtukaay kon ak i xam-xam yu xarala yoo xamante ni eh, ni ma waxee samp na ay ranam te yaakaaruma mu dindeeti ko xanaa kay gën a jëm kanam la ñuy wax xam nañ nit yàlla da ko sàkk ci anam boo xamante ni Euh, bu xaw a doy la yàlla rek moo ko xam ci xerañte gi ndax dafa am pàcc boo xamante ni mënees na koo gis man koo laal muy yaram wi ak lu ci aju am beneen pàcc boo xamante ni kenn mënu koo gis kenn mënu koo laal euh, làmb ko di ko daj waaye danañ xam ne mi ngi ci biir nit te daanaka moo tax ñu naan nit loola nag mën nañ koo tuddee xel mën nañ ko tuddee bakkan mën nañ ko tuddee roox waaye li am solo mooy am na beneen wàll daal ci doomu aadama buy ñëw ànd ak yaram bi ngir nit mën a am wàll googu nag moo xaw a doy waar lool ndax moo jafe tënk ca nit ni ko yàlla bindee it da ko def ci anam boo xamante ni nit ki munta beru di dund ay aajoom di faju faawu ci biiri moroomam rek lay nekk bu nekkee ci biiri moroomam nag day am ay bëgg-bëgg di am ay yëg-yëg euh, ñeneen ñi tamit tamit di ko am su ko defee nag bu boobaa loola ci nekk ci nit nga xamante ni mu ne su koo daj mu ne su koo gis faaw moom mu def ay pexe ngir xamal ko ñi mu nekkal loolu mooy jur jokkoo ci diggante doomu aadama yi kon jokkoo dafa doon lu munta ñàkk ci diggante nit ñu ànd di dund te ni ma ko waxee nit munta beru ci biiru moroom rek biiru moroomam rek la mën a nekk looloo tax nag tomb bu mel nii am solo lool lool ñu fas ne ko waxtaane ci anam boo xamante ne bu tënku tomb yi mooy rek ñu wax jokkoo mooy lan san solo la am ci dundu doomu aadama bi yan euh, yokkute walla développement moo ci am wax tamit jumtukaay yan lañuy jëfandikoo rawatina jumtukaay yi ñuy waxtaane ak it bañ jeexit la yooyu mën a am ci dund ak nit ñi su ko defee ñu tënk ko daal di yëkkati jotaay bi ci anam boo xamante ne bu bu simple la euh, niñ koy xamlee bari na lool wuute na waaye mën nañ cee jàpp rek euh, ni kàddu yi léeg-léeg mooy wuute waaye jubluwaay yi benn la ñu ci bari ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci fànn bi ci muy jokkoo diggante doomu aadama yi dañuy wax ni xeetu xeetu weccante xalaat weccante ay xam-xam diggante ay nit wala diggante ñaari nit wala ñu ko ëpp ci jublu ci mën a déggoo jublu ci ak déggoo am ci seen biir jegante ay xalaat jegente ay xalaat wóoloonte am muy confiance kon dañuy weccante xalaat ngir mën a déggoo ngir mën a it wóoloonte ci suñ biir ndax loolu mooy indi jàmm xalaat yooyu nag mën naa nekk expérience bu nit ki dund maanaam dund lu weesu ci ak dundam wala lu ñeneen dund ñu mën koy weccante xalaat ngir mën cee jariñ kon weccoonte xalaat boobu diggante nit ñi ngir mën a soppi yenn taxawaay yi moo tax jokkoo di am ngir it wóolante mën a am jegente mën a am xamante mën a am dimbalante mën a am yooyu yëpp da ci juddoo ci biir jokkoo bi bu jokkoo amutoon nag fitna mooy fitna moo ci juddoo ndax xam ngeen ni euh, ay nit bu ñu àndoon ñëpp maase ni pat ni ay muuma kenn waxut bu làmmiñ yi waxut it xel yi moom danañ wax xel yi danañ xalaat xel yi danañ gëstu su ko defee nag kenn ku ne bu boobaa euh, na ko fooge ak nanga ko jàppe rek noona ngay doxe cañ xam ni tamit nit ay jëfam dafay wone ay xalaatam jëf ju nekk bu fekkee ne nit ki def na ko ca sagoom laataa muy nekk jëf ay xalaat la njëkk a nekk ba noppi moo tax liggéey ci xalaat yi li liggéey ci xalaat yi am solo lool bu xalaat yi jagee rekk jëf yi jag waaye bu xalaat yi jagadee dana jafe lool jëf yi jag looloo tax yàlla di wax ne duma soppi nekkiinu doomu aadama yi li feek soppi wuñ seeni xalaatin inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim kon faaw xalaat yi soppeeku ngir jëf yi mën a soppeeku nu xalaat yi mel rek jëf yi melokaan woowa lay mel loolu lu am solo la ca xalaat nag soppi ko mënoo fob sa loxo dugal ko ci bopp nit di nit ki di lux luxi di soppi ay xalaatam mënta nekk ca soppeeku xalaat it mënta nekk ci benn jotaay dafay jël waxtu looloo tax yar ak jàng ak jàngale am solo lool ndax dafay soppi ay xalaat dafay soppi ay gëm-gëm ci anam boo xam ne day jël waxtu mu doon mbir moo xamit ni kenn nit mënu koo def waaye mbooloo ñoo koy defandoo maanaam kenn ci ñun mënta am garanti ni sama njaboot man rekk maa leen di yar lépp lu nekk ci ñoom man kese kese kese maa ko def lenn keneen amu ci loolu mënta nekk ndax xale bi li muy dégg di ko gis ñu di ko wax mu di ko dund yooyu yëpp dafay jeexital ci moom ca dafay jokkook ak ñeneen di wax ak ñeneen di ànd ak ñeneen moo tax kenn munta garanti ni sa njaboot lépp lu nekk ci ñoom yow kese kese kese yaa ko ci def loolu tax yar jafe lool ñi doon yëf ñëpp moo tax bu yareen wi méngoowut xalaatiin yi méngoowut jubluwaay yi méngoowut pour pénc mi jag dafay jafe dafay jafe lool ndax bu ñii di gas ñii di suul pënd mooy bari waaye pax du xóot jokkoo nag doon lu yàgg yàgg mook doomu aadama ñoo ànd amaana sax moo mag doomu aadama amaana sax jokkoo moo mag doomu aadama waaye bii doomu aadama di ñëw ci kaw suuf moom dafa ñëw àndaaleek moom moo tax ñenn ñi nga xam ni seen xam-xam dafa jëm ci fànn bi dañuy wax ni doomu aadama dañ ko mooñaaleeg jokkoo maanaam lépp lu mu def rek jokkoo dana ci wàll yàlla si boo ne woon patt nii rek ni cell nii rek celle googu rek xeetu jokkoo la ak ñeneen day mel ne dafa am message boo yónnee keneen cell rek cell xeetu jokkoo wax xeetu jokkoo junj xeetu jokkoo ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni kii amut lenn lu muy def ca jokkoo du ca amu yoon moo tax ñu ne la al insaanu kaa inun ittisaali mook jokkoo ñoo ànd ca dañ koo mooñaale ca jokkoo sax euh, mënees naa wax ne moo mag doomu aadama ndax laataa yàlla di bind doomu aadama yàlla ci boppam moo jokkoo ak yeneen ci ay mbindeefam muy lu mel ne ki malaaka yi muy lu mel ni ki malaaka yi ca booba bindagut doomu aadama wàcceegu ko ci kaw suuf ba noppi muy wax ak malaaka yi ni leen danaa bind nit ci suuf su ma ko bindee na ngeen ko teral gàttandu ko sujjootal ko kon bi muy wax loolu xibaar boobu bi mu koy jox malaaka yi di leen xamal ne danaa ko def booba doomu aadama ñëwagul ci loolu xeetu jokkoo la ndax yàlla moo jox xibaar malaaka yi ni leen danaa bind nit wa id qaala rabbuka lil malaikati inni xaaliqum basharan min tiin fa idaa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqauu lahu saajidin xabaar la ko la leen jox xamuñ ko woon kon xabaar bu bees teq kon jokkoo am na laataa doomu aadama di am ca booba ma nga am ci malaul ala fu ca fu soob yàlla foofa la amee woon kon gis nga ko alquranul karim tamit ñëw nettali ñu ay anami jokkoo yoo xamante ne am na foofa laataa àdduna ca booba ña ko seqoon am na ci ay jotaay yoo xamante ni yàlla ak malaakaam la am na ci jotaay yoo xamante ni ibliis ak ak aadama ak hawa yàlla tamit àddu ci kon ay xeetu jokkoo yu am yoo xamante ni ca jamono ca booba la woon danaa ci indi rek ñaari misaal yoo xamante ni yàlla jokkoo na ci ak malaaka yi jokkoo am na laata àdduna di ñëw am na foo xam ne yàlla day wax ni dafay xibaar malaaka yi ni leen danaa danaa nome ku ma wuutu ci kaw suuf danaa fal ku ma wuutu ci kaw suuf xalifa ca booba defagu ko bu doon ci doxee nu jamono ji dañ naan njiit li war a jël dogal ca jëlagu ko waxtaan ceeg ñim ci waxtaan ni leen danaa jël dogal def nàngam wa id qaala rabbuka lil malaaikati inni jaailun fil ardi xalifa loolu mooy xibaar bi danaa def danaa wàcce ci kaw suuf ku ma fa wuutu xibaar baa ngoog ca jëlagu ko jëlagu dogal bi ñi ko wax di malaaka yi tontu qaalu atajalu fiha man yufsidu wa yasfiku dimaa wa nax naxnu nusabbixu bi xamdika nusabbixu bi xamdika wa nuqaddisu laka ah ñu commencé jaaxle daan ko ah mbaa ka nga fay wàcce dana doon ku ko mate mbaa du doon tuurkatu deret yàqkat ca ñun day ñu ngi fi ca suñu liggéey bépp mooy topp la sàbbal la di la Eh, di tudd sag sellaay yàlla tontuwaat leen ni leen xam naa lu ngeen xamut xamul indi inni alamu ma la taalamuun bi ñu leen waxee loolu day mel ne daneen di teet yem leen seen place man mi xam lu ngeen xamut bu ma jëlee dogal amaana eh, li ngeen cee ragal eh, du ci am daal leen di wane nii sax xamu leen yéen daal di fab aadama bi mu ko bindee daal di koy dëy ay mbir daal laaj malaaka yi ni leen lii ma lii lii ak lii lan la ginnaaw bi mu ko xamalee aadama ba noppi malaaka yi xamuñ ko daldi saxal daal ñun kat uh, xamuñ lii nga ñuy laaj wa allama aadama al asmaa kullaha tumma aradahum ala al malaikati fa qaala ambiuuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin da a jàpp ne rek yéen leen rek yéen a fi man yéen a xam yéen a nàngam léegi lii lan la malaaka yi ni cell xamuñ ko ba mu yàgg ñu ne ko ñun daal ñu ngi ñu ngi lay sàbbaal saxal nañ nangu nañ ñi xamuñ yow yaa xam luñ xamit yow yaa ñu ko xamal qaalu subhaanaka la ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim kon gis nga xeetu waxtaan xeetu jokkoo am na diggante yàlla ak i malaakaam ci xibaar bu mu leen joxoon ñoom it ñu am cag jaaxle ak tiitaanga ni boo wut wut kat suuf si dana yàqu ndax ka fa yàllay wàcce du mate la tax mu wàcce ko fa yàlla dalal seen xel ci wàllu jokkoo ni leen du demee noonu ba ñu am xel mu dal daldi di ne kon daal nangu nga gis ni fii jokkoo am na fi bu wóor boo xamante ni xibaar biñ joxe xibaar bu wér la bu dëggu la ba tax mu def jeexit ca kañ ko jëf jeexit bu bu am solo sax ci kiñ ko jëmale mooy ni ku doon sikk sàkka ci jokkoo tax ñu génne ko ci taxawaayu kuy sikk sàkka yóbbu ko ci taxawaayu ku gëm xibaar bi nangu dëgg loolu lu am solo la beneen misaal bi ci des mu ngi am diggante aadama ginnaaw bi ko yàlla sàkkee daan na ko yow yaag sa soxna si xawa man ngeen a dëkk aljana fu leen ci neex nag man ngeen fee dem tënkuma leen ci dara lu dul benn mbir rek mooy am garab sàngam bu leen ko laal bu leen ko sax jege rek li ci des lépp euh, yéen a ci moom seen bopp bi mu leen waxee loolu kon gis nga jox na leen ndigal jox na leen ndigal ñu ñu dund ci anam bi ñu ko bëggee wa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljannata fa kulaa min xaytu chituma wala taqraba hadihi shajarata fa takuuna min alxaasiri min alzaalimin fa waswasa lahuma alcheytaanu li yubdiya lahuma maa wuriya anhuma min sawaatihima wa qaala maa nahaakuma rabbukuma an hadihi shajarata an hadihi shajarati illa an takuna malakayna aw takuna min alxaalidin xibaar baa ngoog yàlla bi mu waxee aadama ni leen man ngeen a nekk fii ak xawa waaye nag lu leen ne xéewal yi daal la ngeen ni gàññ waaye garab sàngam rek laa bañ ngeen laal ko bu leen ko laal seytaane ñëw di communiquer di jokkoo ak aadama ak xawa ba yàq seen xel ni leen yéen de teraanga yi bari na de waaye am na lu leen yàlla bëgg eh, bëgg xañ mooy wàccuwaay bu mag ngeen nekk ay malaaka wala sax ngeen sax ci dund gi ndax xam nga ne dund lum neex neex ca ca ñu ne la àpp sàngam la yam euh, doon na fi gën a neex bu doon bu doon sax yàlla nag dafa bañ ngeen sax balaa yàgg ngeen jóge fi da ngeen di faatu de say boo ngeen lekk ca garab gee mu leen wax ndax mooy tax du ngeen faatu xam nga wax jox na leen ab xibaar ba noppi tamit dooleel ay waxam nag dooleel ay waxam ci ay giñe ki jéem a indi ay firnde wa qaasamahuma inni lakuma la mi min annaasihin di waat di leen xamal daanaka di leen di waat rek ni leen lii ma leen wax mooy dëgg yàlla dafa bañ ngeen gudd fan dafa bañ ngeen sax ci dund gi balaa yàgg da ngeen faatu ak lu dund gi neex-neex bi mu ko waxee aadamaakaawa seen xel jax-jaxe xalaat yi soppeeku jëf ya daal di soppeeku mooy ndigale yàlla yi ñu doon jëfee ci bañ a laal garab ga léegi ñu fay bañ soppee seeni xalaat lañ daal di dem lekk garab ngeen gis ni kon bu xalaat soppeekoo jëf soppeeku ñu daal di dem lekk ca garab ga rek yàlla rafleel leen ak la ca topp lépp léegi nag yàlla daal di leen di wax ni leen waaw yéen de tere woon naa leen lii de lu tax ngeen def ko ca artu woon naa leen nee naa leen seytaane seenub noon la bu leen ko diglu noon doo ko diglu ci doo ko diglu ci lépp te foofa rafle amu fa woon bañ lekkee garab gi lañ daal di rafle seen yére yëpp wuññeeku seen awra ji nekk ci biti ñu gaaw di fëkk ci xobi garab yi di làq seen awra yi ca xamuñ woon awra yi xamuñ ko woon sax waaye loolu daal dafay am xiif amu fa woon mar amu fa woon ay tawat jàngoro yi am ci àdduna amu fa woon foofa daal macha allah dund gu mat sëkkale woon waaye ñu soppi seen xalaat ba yàqal leen ko ñu tuub daal ne xaala rabbana zalamna anfusuna wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal xaasirin daal di saxal daal ne ah ñun kat ñoo juum wax ko seen borom yàlla ñun kat dañoo juum xam nañ ni boo ñu jéggalut ci yërëm nu tuskare danañ tuskare yàlla ni leen lu man a am fii moom dama leen fii génne moom qaala ihbitu baadukum li baadin aduw lakum fi l ard mustaqarrun wa mataaun ila xin léegi li mbir yi daal léegi mooy àjjana jii moom ak li ma leen fi joxoon ci teraanga ngeen di mooy ndigal léegi da ngeen di far génn kaay leen dem ci kaw suuf rek suuf soosa bu ngeen fa demee mbooleem daanaka safaanu li ngeen amoon ci àjjana moo fay am rek danaa leen fa bàyyi ab diir gudd fan gi ngeen doon dabu eh, ak bëgg sax ci àdduna ba tax ngeen di lekk ci garab gi danaa leen wutal ay àpp boobaa da ngeen di faatu àpp boo xam ne bu ngeen ko dundee faatu ca raf la dana fa am xiif dana fa am mar dana fa am tawat dana fa am kon àdduna noonu mu mi la nit moo ko teg boppam ndax ñàkk a topp ndigal euh, la ko yàlla joxoon ak tamit jax-jaxee bu ko seytaane jax-jaxee xelam ba soppi xalaatam ba xalaat ba soppeekoo jëf ji soppeeku coonay àdduna ji yëpp loolu moo ñu ko indil waaye bu bu nit yemoon fa mu war a yem xibaar bu bon bi ko iblis jox buñ ko bañoon rek lii lépp du ci am ngeen gis ne kon moom it foofu xalaat soppeeku na fi jëf topp ca daal di soppeeku waaye li ci bon mooy communication bii bu njëkk bu mujj bu ñaareel bii dafa doon buy réeralaate mooy li ñu tudde manipulation loolu it ba léegi mi ngi ci suñ jamono ji di joxe xibaar boo xam ne wérut da nga koo taaral jëfandikoo ay jumtukaay te la ngay wax dara du ci dëgg ba yóbbe ay nit ay musiba ak balaa loolu moo am ci diggante iblis ak nit ñi seen ak dundi daal di soppeeku teraanga ja daal di léegi limité wu lu leen daawut dal di leen dal ci ay xiif ak maraki jàngorook ay yu kenn xamul lii buñ ci sukkandikoo xaw nañoo war a mën a wax ni euh, jokkoo ngir mu am njariñ xam-xam bu wér da ko war a lal man-man du ay lijaasa nii rek waaye compétence bi man-man bi tamit da caa war a nekk wàllu jumtukaay yi technique bi dafay war a nekk waaye surtout rawatina ak njub ak njub ak njub moo ci am solo mooy li ñuy tuddee éthique istiqaama bu amut kii nga xam ne day jokkoo day jëfandikoo jumtukaay yi yàq la cay gën a def ci defar diplôme bu mën a am na ko am ñu ne nangam diplôme sàngam la am xam-xam ba ma nga fa man-man ba ma nga fa wàllu technique bi mën na ko technicité bi ma nga fa waaye dafa jubadi bu jubadee rek mooy munta daanaka def lu baax ndax jubadi dafa bon kon éthique lu am solo la ci wàllu jokkoo ñàkk éthique moo tax iblis wax joxe xibaar bu bon ba soppi xalaatu aadama ak ba génne leen ci teraanga ja nekkoon éthique dafa amutoon ndax waxu leen dëgg waxu leen dëgg loolu it day am ba ci suñ jamono ji am na ñoo xam ne duñu wax dëgg ñi ngi yor jumtukaay yi waaye amuñ éthique xaalis lañ tey topp seeni bëgg-bëgg ak yàqak ak yeneen ak yeneen waaye amuñ li ñuy tudde istiqaama rafet jikko ak sidq wal amaana xam nga ne yónnante yi yàlla da leen a yónni ñuy joxe xibaar ñoom it ay communicateur lañ dañuy joxe xibaar waaye xibaar yooyu yàlla da leen a tënk ba éthique bi nekk fi maanaam jikko ju rafet ji nekk fi mooy ni am na ñetti mbir yoo xam ne yónnante yépp dafa war ci ñoom amut benn yónnante bu bu bu bu ko amut mooy as ko wal amaanatu wa tabliir mooy dañoo war a dëggu dañoo war a wóor te dañoo war a jottali liñ leen jottaliloo ca duñ ca wàññi duñ ca yokk journaliste wala boog taskatu xibaar yi wala boog ñiy jëfandikoo jumtukaay yi yépp melokaan yooyu lañ war a am melokaani yónnante yi dëggu wóor ca def mbir mi na ko war a defee bañ a yokk bañ a wàññi loolu lu mat lu mat a téye la su loolu amut ay ay ay yàqute rek moo fee am kon jokkoo lu am solo la bu jàmm amee ci àdduna jokkoo am na ci waaru ama am solo waaye fu ay tàkke jokkoo am na fa am na ca wàll wu wu wu réy réy ndax moom mooy dugg ci xel yi di jax-jaxal xalaat yi di soppi yëg-yëg yi di soppi gëm-gëm yi ba tax yeneen taxawaay di am ci nekkeenu doomu aadama yi kon lu am a am solo la jumtukaay la boo xamante ne kenn waru koo fooye lu munta ñàkk la tamit lu munta ñàkk la ci ci njiit lu baax lu munta ñàkk la ku jiite ku nekk di jokkook di wax ak di jokkoog ñamu jiite ci anam bu mu ko mën a defee waaye faaw mu am saa boo nekkee njiit ca doo jokkoog ña nga jiite ña nga jiite dañuy doxe seen xalaateenu bopp jokkoo lu munta ñàkkale ci bépp dogal bu nit ki war a jël ndax bala ngaa jël dogal war ngaa waxtaan ak keneen wa shawirhum fil amri loolu la yàlla santaane boo waxtaanu nag mooy jokkoo kenn sa xalaatu bopp kese ngay doxe njuumte dalay lay yomb jokkoo lu munta ñàkk la lu am solo la tamit ci lijjanti lëj-lëj yi idaaratu siraat conflit yi am ci biir askan wi waxtaan ak jokkoo moo ko mën a lijjanti moo ko mën a lijjanti kon loolu it lu ci mënta ñàkk la njiit lu nekk kon faw muy wax ak aw askanam wax ak ñamu jiite balaa jël dogal waaye it saa bu lëj-lëj amee pour ngir ñu lijjanti ko faw jokkoo am kon ci anam boobu bu ama ama am solo la am solo googu moo tax daanaka mu takkook doomu aadama ba doomu aadama lu mu def rek jokkoo am na ci boo solu woon dong toog ni cell yaa ngi jokkoo ak ñeneen yaa ngi leen di jox message ndax sa noppeeral googu am na lu ci nit ñay déggee di ci di ko ci xalaate ba ci col gi xeetu jokkoo da cee am ndax boo soloo rek ku xam aaday Sénégal dana xam ndax yow bawal bawal nga wala ajoor ajoor nga wala siin siin nga wala fan nga doonte waxoo bu fekkee ne kooku xam na xam na réew mi boo soloo rek danañ xaw a xam ndax yow jullit nga wala doo jullit ci biir kuréelu jullit ñi fan nga ci bokk yu ci bari ci solu rek ak ci ci ci wax waxi nag yooyu yëpp da ciy feeñ ndax jokkoo mooy génne yëg-yëg mooy génne xalaat kon mën nañoo wax ni jokkoo kon euh, li ko daanaka mën nañoo wax ni daal bu ñu koy jëfandikoo war nañ cee bàyyi xel yii may bëgg a wax mooy ni yàlla dafa sàkk doomu aadama yi euh, ba noppi wuutale leen ci lépp nit ku nekk dafa wuuteek moroom ja ay cheikh sax bokkuñ nuroowuñ lépp aw askan tamit askan wii day wuuteek weneen askan ci ci ay mbir wuute yooyu nag yàllaa ko ci jublu ba noppi nag sant ni ñu bëgg naa ngeen jegee ngeen xamante ca xamanteeg jege ak jëflante munta am ca jokkoo amu fi kon ngir sottal santaane yàlla boobu faaw jokkoo dana ci am yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum beneen bi ci des mooy nit ku xam lépp amut nit ku xam lépp amut askan wu xam lépp wala bu am lépp amut faaw jokkoo di am diggante askan yi diggante nit ñi mooy tabaadulil maalumaat wal maarif xiyam yi valeur yi doomu aadama yi am valeur yi jikko yu baax yi am na ci yoo xam ne kenn moomu ko ñépp a ko bokk am na ci yoo xam it diine lislaam moo ko indi waaye fekk fi yeneen gën koo dëgëral ak mbaax tabe ak yu mel noonu yooyu laataa lislaam di ñëw amoon na fi muy valeur universelle yoo xam ne ay doomu aadama ñoo ko baaxoon xeet woo dem gëm-gëm diine joo mën a dem da nga fa fekk ñu baax ñu jub kon yàlla yàlla dafa wàcce yolli yónnente ngir gën koo dëgëral te loolu it ngir mu mën a tasaaroo faw jokkoo am loolu tax yónnente bi di wax ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq ngir mottali jikko yu rafet yi moo tax ma ñëw moo tax yàlla yónni ma kon loolu lu ci am solo la beneen bi ci des mooy garantir liberté nit ñi yàlla dafa sàkk nit ñi ñu libre kenn judduwut nekk jaamu kenn kenn ku ne jaamu yàlla rekk nga ci nit ñi ci seen tërëliin ak seeni doxin ñooy ëppante doole kii ñu naan kii jaamu kii le kii jaamu kii le kenn du jaamu kenn ñëpp jaamu yàlla lañ liberté boobu faw ñu koy sàmm ñu koy sàmm liberté yi xalaat ak liberté wax la nga xalaat waaye nag fi xududil qaanuun da ci cadre luwaa yi ak tëralin yi kenn du kenn du wax lépp bu fekkee ne woon lu jaar cim xel làmmiñ tudd ko àdduna tukki jàmm du am ci àdduna bu doon ne lu xalaat jàmm du am ci àdduna moo tax kon wax sa xalaat ak libre ci say xalaat faw ñu tënk ko ci ay tërëleen ñu ne ci biir cadre luwaay yii kenn ku ne am na sañ-sañu xalaat ca wax lam xalaat waaye boo génnee loola mooy yaa ngi dugal fitna ci biir askan wi kon sàmm liberté yi ci xalaatiin ak ci waxin loolu lu ci am solo nit ñi kenn du leen ngalaab du ngeen ko fi waxe du ngeen ko fi xalaate wër wërta am saa boo ko defee jur fitna waaw doo ko fi waxe mën naa nekk waaye doo ko fi xalaate moom moo gën a jafe sax moom doo ko fi xalaate moo gën a jafe moo tax yàlla da ko da leen a mooñaale ñu libre kon ku bëgg indi fitna yàlla leen bëgg a xañ seen liberte boobu jokkoo yooyu nag kon am solo lool ci ju looloo tax jumtukaay yu bees yi askan wi eh, di ko jëfandikoo ñépp nag catégorie nit boo dem eh, ña ngi ko ña ngi fay jëfandikoo mag ñeek ndaw ñi kilifa yeeg ñi dut ay kilifa kilifay diine yeeg kilifay politique yeeg amu ci kenn ku ko du jëfandikoo waaw ci nii ak ca naa kon ñëpp a koy jëfandikoo ci domaine yëpp nag ci wàllu koom mi ci wàllu dundin wi ci wàllu politique ak ci anam yëpp lañ koy jëfandikoo moo tax ngeen gis sunu njiit yi njiitu politique yi rawatina ñoom ñëpp daanaka léegi ci seen page ci seen ci jumtukaay yi lañuy lañuy la ñuy jàllalee seeni xibaar ñu ci ëpp ndax dafa gën a gaaw dafa gën a gaaw njiiti diine yi tamit am na ci ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci biir di ko jëfandikoo waaye ci biir ñi koy jëfandikoo ndaw ñi ñoo ci ëpp fii ci Sénégal ndaw ñi ñoom ñu ngi koy jëfandikoo ci anam yu baree baree bare ci anam boo xamante ni bu bu bu yéemee la sax donte amuñ ay ay chiffres yu koy wane nii euh, yu aju ci Sénégal waaye ci gendeeku rek xam nañ ni ndaw ñi fu ne daanaka ñoo nekk ci réseaux sociaux yi bu ñu leen dendaleeg mag ñi euh, ñu ngi koy jëfandikoo ci wàllu yëpp nag ci yooyu ma tudd yëpp loolu sax moo tax ak tasaaroo gi tasaaroo ak ni mu ni ko nit ñi euh, yore tax na yenn réew yi sax euh, di ci amuk tiitaanga ba di ko jéem a tënk di ko jéem a tere ci yenn ci seen seen seen suuf yeneen yi ci des ci yenn tolluwaay yi ñuy ñu koy jéem a gàllankoor fii ci Sénégal gis nañ ci weer yi weesu euh, nguur gi tëjoon na fi téléphone yi connexion yi ngir tolluwaay bu toll réew mi tolloon mooy ngir ay mbiru sécurité dana tax léeg-léeg yenn réew yi duñ nangu mu tasaaroo genn tasaaroo gi wala ñu di ko jëfandikoo ci yenn anam yi wala sax ci yenn tolluwaay bu xat-xat amee nga gis ñu dem cee wut ay pexe loolu it gisoon nañ ko fii ndax loolu kaaraange gi ak jàmmi askan wi la moo tax euh, léeg-léeg ñu koy ñu koy def boo demee ci am na benn jàngat bu buñ def Égypte boo xam ne euh, euh, ay borom xam-xam ñoo ko def Égypte at muy weesu rek 2023 bi ci ñiy jëfandikoo réseaux sociaux yi rawatina ci ñiy jàng muy étudiants yeeg yu mel noonu euh, jàngat boobu lam joxe mooy ni ci biir étudiants yi téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk ak ñett ñi ngi jëfandikoo réseaux sociaux yi échantillonnage bi ñu jëloon mooy 400 personnes ñeenti téeméeri nit ci lañ ko natt. def ay laaj jox leen ko ñu tontu résultat bi bokk na ci wane ni ci daaw daaw kese la daaw 93 pour cent ci xale yi ñu ngi ci réseaux sociaux yi loolu kon am réew mu am réew mu nekk foofu loolu dama ko joxe misaal noonu rek ngir ñu natt ko ci natt ko waaye ñu nit Sénégal boo ñëwoon boo gisee da nga gis taux bi rawatina ci réew moo xam ne comme Sénégal juróom-ñaar téeméer bu ne juróom-ñaar fukk ya ak juróom-benn ay ndaw lañ bu ñëpp maasee nekk ci réseaux sociaux yi. liggéey bi kon war nañ koo xoolaat ci jëlaat yeneen matuwaay ci ci biir ci biir loolu lim boobu juróom fukk yi ak ñeent yu tegal nee nañ ñoom heure yëpp ñu ngi ko ci réseaux sociaux yi ñu ngi cinquante 54 virgil trois pour cent ñu ngi ci réseaux sociaux yi maanaam ñu ngi ci daal ñeneen mu am mu am euh, fanweer ak juróom-ñett yu tegal yu ne ñoom. ñi ngi ci waaye du ne heure yëpp lañ ci nekk léeg-léeg lay nekk kon nga gis ni téeméer bi boo ko jëlee ci ndaw ñi juróom-ñaar daanaka ñoo koy jëfandikoo ci ñoo ko ñoo ko du jëfandikoo wala liñ ko du jëfandikoo bariwul moo tax xam ngeen ne Égypte seen soppat yooyu amoon seen nguur googa daanu woon lañ doon tuddee euh, le printemps arabe mooy rabiul rabiul arabi xaw ma ba nguur ga daanu réseaux sociaux yi amoon nañ ci taxawaay bu ama am am solo ndax jokkoo bi looloo tax yi réew yu bari fu nekk nii bu bu seen réew tollee ci yenn situation yi dañu fexe ba gàllankoor ko jokkoo bañ a am ndax bu jokkoo amul organisation bi day daal di jafe njiit yi pour mu jokkoo xale yi du yomb ca suñ réew mi gis nañ ni parti politique yëpp léegi xam nañ ko ñoom ñëpp daanaka am nañ ay chaîne YouTube ñoom ñëpp kenn ku ne personnalité yu mag yi kenn ku ci nekk tamit am na kontam compte boppam di ci jokkoo ay militant ma ak yu mel noonu am na ci sax homme politique bu siiw bu ñu doon tuumaal ni ko yow sa militant yow daal réseaux sociaux yi mooy sa espace gis nañ li xew ginnaaw bi kon sopp ay jumtukaay la yoo xam ne ku la ko gën a saytu fu mu nekk nii ëpp la jeexit ci nit ñi jumtukaay yooyu nag ci loolu mooy tomb ñaareel bi eh, xëyut xëy rek mel nii ci dundu doomu aadama yi kon dafa am fu mu jaar ba egsi fii euh, doomu aadama ci bu yàgg buñ daa jokkoo boo bëggee xibaar egg ci yóbbu xibaar ci beneen ci keneen benn nga dox ndax espace li nëpp boo bu ngeen bokkut fu ngeen nekk da ngay dox walla nga war wala nga takk sareet waaye yónnee xibaar ci jaww ji nii amutoon bu njëkk kon faw nit dana jóge ci barab dem ci barab moo xam daa dox wala mu war wala mu takk saret walla leneen kon diggante barab barab danga ko dagg ngir mën a jokkoo foofu la jamono tolloon bu yàgg waaye nag dafa mujj léegi nag ak soppeeku du am ba mujj léegi nit ki mën nay jokkook fu waay nekk daanaka ci àdduna bi ca kenn du jóg fa nga toog te kenn du jóg fa nga toog jumtukaay yi tamit dafa bari du benn rek bari na lool mënees na ca tudd lu mel nekk Facebook lu mel nekk Twitter lu mel nekk Instagram lu mel nekk YouTube WhatsApp ak LinkedIn ak yeneen ak yeneen yu baree bare la yoo xamante ne réew mu nekk daa am bu fay gën a tasaaroo réew mu nekk dafa am yu fay gën a tasaaroo kon Euh, egg na foo xamante ne ku la ko gën a jekku rek ku la ko gën a jekku gën laa yilif nit ñi daanaka gis ngeen sunu tànn njiitu réew mi weesu rek balaa gee di jot rek daanaka mbir mi leer na lu ko waral mooy ña teewe jotaay ba ca fañ teew rek lañ koy yónnee ca saa si ci états généraux yi ñu def seeni calcul tendance yi commencé leer ca amaana ay jamono yoo xamante ni ba yii amagutoon euh, euh, soppat yu bari dadaa am ci ci tànnuk nit ñi ndax fa nekk dañ ko fay tuxale ay nit jël ko jang-jangee ko yóbbu ko ci beneen barab ci diggante bi xamoo lu fiy xew barab booba it ña fa war a teew teewuñ fa xamuñ la fay xew ñu xëy xëy ni nit ñi ñii ngeen tànn ca amaana tànnuñ kooka léegi nag bu fekkee ne ca barab bañ koy defee rek ca saase la mbir yi di dem bu boobaa daanaka soppi da ciy wees moo tax ku la ko gën a saytu gën laa yilif nit ñi ku la ci gën a fàddu nag jàppal ni boo nee yaay yilif nit ki tamit nit ki moom diglootu la ndax jumtukaay bi bi nga ko war a jokkoo moom maîtriser woo ko yooyu nag di am ay jeexet kon ci ci euh, jikkoy nit ñi ca loolu it mooy tomb muy muy beneen tomb boo xamante ni euh, bu mat a bàyyi xel la ci anam bu yaatu dañ naan dañ naan euh, jumtukaay yii day tabax nit te loolu ay gëstu moo ko wane ay gëstu ñoo ko wane jeexit bi muy def ci seen jëmm ay jàngat yoo xam ne wax nañ ni 74 pour cent jumtukaay yi dana ko participer soixante euh, euh, soixante quatorze pour cent ci ay nit gëm nañ ni jumtukaay yi dafa jeexital ci seenu doxin ak seenu nekkin maanaam kon day tabax nit dañuy wax day tabax nit tabax googu muy tabax nit di ko formaté di soppi di soppi xalaat yi di ko di ko joyante di ko jëmale feneen loolu ku ku nekk ca terrain bi yaa yëlif nit ñi ku ca nekkul nag xamal ni nit ñi bu ñu ànd ak yow it dañoo ànd ak yow nii rek waaye yëlifagoo leen fii nag euh, dafay li ma fay junj mooy gis nañ homme politique yi nitu politique yi ñoom xam nañ loolu ñoom fu mu ne xam nañ loolu moo tax ñu ne lëcc ci réseaux sociaux yi nekkandoo ca xale yi nekkandoo ceeg ndaw ñi waaye nit yi diine yi ay benn benn nga leen ciy gis ca xam nga ne senegal ni ko yàlla binde ni yàlla binde Sénégalais yi Sénégalais bu nekk daanaka ñaari kilifa la am ci wàllu diine am na ku muy diglu ci wàllu doxeenu àdduna am na keneen ku mu cay déglu maanaam amul benn kilifteef rek léegi nag ñaari kilifteef yi bu kenn ki dee ànd ak moom ni létt ànd ak moom ci pénc mi ci réseaux sociaux yi fu mu toll di ko gis fu mu waxee mu mu dégg ko nangam nangam ka ca des fàddu dafay mujj day mel ne xale yi dañuy jeng jëm ci kee ca fekk kee taxawaay bi mu war a am ci mbir yi moom la taxawul boo déggee léeg-léeg xale yi di fippu naan kilifa yi dañoo war a wax dañoo war a wax dañoo war a wax am nañ ay aajo ñu bëgg kàddu jottali leen ko ca kàddu googu ni cell ni cell bu nee cell rek xale yi dañuy jeng dem di diglu ji keneen ca comme que ñaari kilifteef la am ci wàllu diine kii moo ci sama kilifa ci wàllu doxeenu àdduna kii moo ci sama kilifa bu boobaa kateew rek kateew rek mooy jeexital ci ñoom mooy waral fu mu nekk nii wote yeeg nangam yi yépp ngeen ci gis muy joxe ay ay mbetteel muy joxe ay mbetteel ñu jàpp ne kilifa yi fii lañ jëm mbooloo mi jëm feneen parce que dañ leen a saytuwul kenn waxut ak ñoom boobaa dañuy fartaatu ay xibaar ni lecc ci mbir mi nekk ca kay wax ak ñoom di ko déglu rek su ko defee mu am influence ci ñoom affaire bi soppee bu soppee koy am day mel ne dañ naan déggatuñ digal wala toppatuñ digal fekk dañoo saytuwut communication bi dañ koo saytuwut bu baax kon loolu lu ci lu ci mat a bàyyi xel day tabax nit kon ku ko ku la ko gën a yor rek gën laa jeexital ci personnalité nit ñi ak ci seeni doxin ak seen xalaatin njiit yi nga xam ne nit ñi dañuy dañuy yéemu ci ni leen mbooloo mi di toppee ba nga xam ne da naan lii moom secret yàlla moo ci am dëgg la secret yàlla dana ci am ndax mooy wëlbati xol yi di ko jëmale ci ci ci nit waaye léeg-léeg gën a xam waaye jamono dana ci jeexital gën a xam tolluwaayu jamono gën a ànd ak nit ñi ci seen i yëg-yëg ak ci seen i yitte dana ci jeexital beneen mbir bi ci des ci anam bu yaatu mooy ni réseaux sociaux yi dafay nekk occasion ci ñeen ci gëstukat yi ñi nga xam ne xam-xam moo leen yitteel moo xam dañuy jàng wala dañuy jàngale wala dañuy gëstu dana leen ko yombalal lool lool lool ndax fu mu nekk nii dem nañ ba ay université ak ay institut barabu jàngukaay yi gën a kawe di am ca nit ñi duñ daje di toog di jàng kii mi ngi senegal këlee nga Égypte këlee nga Cameroun këlee nga feneen ñëpp benn prof bi benn jàngalekat bi di leen jàngal nekk Touba ci misaal ca duñ daje kon ay ecole ak i salle de classe yoo xamante ni ci jaww ji ni lay nekk ñuy jàng di gëstu di dugg ci ay bibliothèque ni ngay waaxoo dem dugg bibliothèque Cheikhul Khadim bi ci biir internet bi da ngay dugg ci ay bibliothèque di yëkkati ay téere di teg di yëkkati ay téere ba egg ci la nga bëgg ca bibliothèque ba ngay dugg mën naa am ma nga ca réew ma gën a sori ci àdduna bi loolu tax yooyu ku la ko euh, moom it njariñ li euh, foo ko natt weesu na ci wàllu wér gi yaram tamit taxawaay bu amaa am solo la da ngay am ordonnance ñu ne la ordonnance bi amut senegal ci misaal nga foto ko yónnee ko ku nekk barab sàngam ci meneen réew mu jëndal la ko fa ak yeneen ak yeneen yu am solo yoo xamante ni da koy jeexital ci dundu euh, nit ki expérience yi ñuy weccante ak yooyu yëpp da ciy jeexital am na ci ñoo xam ne tamit dañ ciy commerce maanaam ay boutique lañu am di commerce ni ngay demee ci demal ci boutique bi ci koñ bi jënd noonu la am ay boutique virtuelle yoo xamante ne nit ki du du la mën a wax ni la sama boutique a ngi nii waaye commerçant bu mag la boo bëggee rek day daal di def ay pexe statut nit ñi gis ko daal di commandé mu daal di yónnee leen ko fañ nekk maanaam client bi du gisante kiy jënd bitig bi tamit ci jaww ji la nekk rek ci jaww ji marchandise bi mi ngi ci jaww ji boo ko soxlaa rek mu fexe ba nga jot ci xaalis bi tamit gis nga ko dañ koy jëfandikoo kenn ku ne ci sa ci sa téléphone yaa ngi ceeg xaalis boo làmbee doo dajew kayit waaye danga nga gëm ni yaa ngi xaalis ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni. Euh, dafay da ciy jeexital comme ci ni ñuy doxee léegi dafay jeexital kon nit ñi jeexital na ci ba ci ni ñuy dencee seen xaalis léegi ak ñàkk kaaraange gi ñu ci bari léegi xaalis liquidité dañ koy wàññi bu baax a baax ñenn ñi dañuy moytandiku yor ko nga xam ne léegi ci sa téléphone nga ko yor téléphone bi am ay code ay nangam yu mel noonu yoo xam ne pour nit egg ca du yomb kon yoratoo aw këyit xaalis wooy kii waaye saa boo bëggee jënd sa téléphone ngay kii rek daal di jënd li ngay jënd mu daal di jeex nga dem ku la dogale woon tamit du fekk de xaalis ci sa yaram téléphone bi lay mën a këf di ci jéem a def ay pexe ak ay yeneen ak yeneen kon nga gis nga ba ci sunu comportement sunu denciinu xaalis sax ak sunu liggéeyin ak soppeeku gu rëy rëy da ciy daal di am ndax mbir yi léegi dafa dox ci dafay dafay eh, jumtukaay yi moo koy waral kon yooyu ci wàllu njàng mi ak gëstu yi ci wàllu liggéey bi ci wàllu tabax doomu aadama réseaux sociaux yi mi ngi ciy def lu doy waar mi ngi ciy def lu doyo doy doy waar yoo xamante ni euh, euh, saytu ko ak topp ci lu lu am solo la bu ñu xoolee nit ki tamit dañu gis ni réseaux sociaux yi mu ngi def jeexital ci ñoom ci ci ay anam wàllu jokku mbokk lu yàlla santaane la silatu rahim lu yàlla santaane la lu ama am solo la lu bari ay njariñ la nit dadaa jóge ci barab dem ci barab seeti mbokkam seeti ko ñu toog waxtaan léegi ak xat-xatu jamono léegi ñi ngi jokk ak mbokk ci lu dul ngay jóge fi nga nekk mbokk yi ñi ngi dajee cib ëtt ëtt boo xam ne ci jaww ji la nekk nii rek muy groupe yi ci jaww ji ëtt bi ci jaww ji la nekk ñu daje fi waxtaan fi amaana sax gisante ci ay photo gisante ci image waaye kenn du mën a laal sa moroom kon ñi ngi jokkook mbokk ci beneen anam ci jaare ko ci jumtukaay ñi ngi dëgëral dëgëral relation yi jëflante bi ci diggante nit ñi jokku mbokk nag li ci nekk ci solo euh, bari na lool ci wërsëg wu yokk day tax a gudd fan ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci kon ci biir ëttu euh, réseaux sociaux yi nit ñi ñu ngi ciy toog di waxtaan di daje di dëgëral seenu jëflante di jokk seenu mbokk ca kenn jógewut fa nga nekk lu am ama am solo la euh, léegi nag sobantal ko <coughs> sobantal ko moom it dafa am yu bari yu muy yu muy jur ci nit ki waaye ëppal ci it dafa am lu muy jur bokk na ci yi muy jur mooy ni day tax jëflante bi kanam ak kanam jëm ak jëmm day gën a néew loolu lañuy la ak tudde at taq shaxsi taqlil min at tafaul shaxsi day mujj léegi nit ñi ni ñuy jëflante physiquement dafay gën a néew dafay gën a néew dafay néew di leen topp topp boo xam ne biir kër gi sax ña fa dëkk ñu ci bari seeni wax day gën a wàññeeku biir kër gi ndax euh, seen wax day gën a wàññeeku ndax la leen daa dajale mooy bokk toog lekk daanaka dafa gën a néew ci kër yi ca lu ci ëpp léeg-léeg même bu ñu bokkoon toog di lekk kenn ku ne yaa ngi ci sa téléphone léeg-léeg nga sànni ci bët daanaka kenn du wax dangay ngay tibb nii di sax di lekk ne ni ci yàlla bu ñu àndoon ci tukki bokk oto it kenn ku ne yaa ngi sëgg ci sa téléphone daanaka wax ji daal léegi gis nañ ni gën naa néew ci jëmm ak jëmm. ci biir kër yi ak ci biti kër yi ci place publique yi ci jotaay jotaay yi rek bu ngeen ko dee seetlu jotaay yu bari da ngay gis ña toog kenn ku ne mi ngi sëgg di xool di bàyyiwaale xel lañuy wax waaye du tee ma nga ca téléphone ba dafa mel ne téléphone bi léegi dañ koo taqaleeg loxo yi ba mun nit ñi mënuñoo taqale kook moom loolu nag baaxut lool ndax ay nit yi tamit nag mu waruñoo soppi seen jëflante bépp di ko jaarale ci ay machine jëm ak jëm jëmm baax na lool di gisante di toog léeg-léeg nga jóg séq jéego dem seeti sa mbokk toog mu toog ngeen di gisante ngay wax muy dégg mu lay gis loolu beneen communication la bu bokkut ak léeg-léeg nga yónnee ko audio wala nga yónnee ko appel vidéo wala yu mel noonu après mu jeex kenn ku ne nekkaat ca la nga nekk ëppal ci it dafay indiwaat beneen mbir ci soppi suñu organisation ci ni ñuy doxee rawatina ci ci ndaw ñi xam nga ni ci biir ëtt boobu nga xam ne ci jaww ji la nekk euh, bari na ci yi ci daanaka lépp lañ ci dugal lépp fa nekk rek lépp mu ngi mel ne ak kër gu yaatu néeg yu baree bari ñu ne la néeg bi lii moo fi nekk néeg bi lii moo fi nekk néeg bi lii moo fi nekk boo fa xasee ba dugg moom ah néeg bu ne nga mën a dugg néeg bu ne nga mën a dugg moo tax ñi ci ñi ñi ñi ñi taq lool ci réseaux sociaux yi daanaka dañuy dem ba mbir mi dafay mujj di leen sànkuloo waxtu wu bare nag di leen sànkuloo waxtu wu bare bare bare bare fu mu ne mën ngaa toog ni ni xaaral ma xool whatsapp bi lu ci xew am nga yéene ñaari minute ñett wala juróomi minute nga génn waaye mën nga faa def fanweeri minute wala waxtu ci loo xam ne doo ko yëg dangay ngay ñollax rek foo laal nii daane daane xaaral ma déglu kii bi dugg ci groupe sàngam dugg ci groupe sàngam dugg ci noonu ngay def ba def fa lu mat waxtu boo xam ne yow amoo woon yéene jëpp fa soo ko woon waxtu woowu moom day daal dem ci jaww ji nii day dem nii loolu lu ci gaaw la gaaw yàq waxtu wi tamit bokk na ci day soppi léeg-léeg waxtu tëdd yi ak waxtu yeewu yi ci ñenn ñi nga xamante ni dañ cee takk ci amuñ man-man bi amuñ man-man bi am na ci nit ñoo xamante ni amuñ kàttanul am connexion fu ñu toll dañ cay def ay pexe léegi di wut connexion ci yenn ci yenn euh, kii yi euh, société téléphonique yi su ko defee yooyu di leen may ay heure ay giga de connexion ay giga waaye ñoom bu ñu leen ko mayee dafa am catégorie gu ñu ko yéenee ba tax dañ koy tënk daan ne lii pour nga mën ko jëfandikoo ci waxtu sàngam ba waxtu sàngam lay doon am na ci société boo xamante ni danaan la li ko tàmbalee minuit mooy xaaji guddi ba huit ci suba ci xeetu jënd jëndiin boo xam ne boo ko jëndee diggante boobu lañ la may loolu mooy lan mooy ne xale yi léegi nañ leen dugal ci mbedd moo xamante ni duñ nelaw guddi ndax xale yi amuñ ñu ci bari amuñ xaalisu jënd connexion foo toll léegi danañ jënd benn yoon rek pour mën a am loolu buñ ko xasee ba am léegi moom duutuñ tëddati lu lu lu jiitu minuit bu min wi xasee ba dugg jotit dañuy bëgg lañ leen may ñu consommer ko ba mu jeex tàkk laataa ñuy nelaw nga xam ne mën nañoo dugg min wi fajar fekk leen foofu ñu tëdd kooku ci xale bu war a jànge naka lay mën a jànge xale bu war a xëy liggéey ci atelier am apprenti naka la mën a xëyee dem liggéey am na ñoo xam ne dañuy teel a yeewu am na ñoo xam ne moom dañ naan naa teel tëdd waaye naa teel a yeewu ndax gàttandu ko balaa 8 nga mën a dugg mooy ni teeluñoo yeewu ngir julli ñoo yeewu ngir liggéey buñ programmé waaye connexion bi lañuy bañ mu rëcc leen nga teel a nekk ci di lux luxi di lux luxi di lux luxi ba 8 heures fekk la fa ba mu jeex nga door a jubli ci say farat loolu it xaw naa doy waar lool beneen bi ci des mooy mën naa dem nag ba mujj mel na drogue mel na sineebar ci nit ki mel na sineebar ku yàgg ku yàgg jëfandikoo sineebar ay day mujj mel ne sneb idmaan loolu la ñuy tuddee idmaan nga xam ne léegi danga ciy egg foo xamante ni boo amut connexion day mel ne àddunaay bëgg a tukki day mel ne àddunaay bëgg a tukki ci sa yëg-yëgu bopp nu mu gën a gaawe da nga def pexe pour am connexion loolu foofu boo ci eggee daanaka yow dootoo mën a waxateeg nit ñi ndax foo toll yaa ngi ak yaa ngi ci téléphone bi day mujj dund gi yow dootoo ci amati njariñ ca ba noppi li ñu tudde stress maanaam bopp bu bopp dalay yomb lool wéetaa nga ci ngay mën a dund euh, ba noppi euh, sam xel ak ñàkk confiance ci sa ci biti ci jëf dalay dal ndax danga tàmm lu virtuel lii tàmmoo euh, tàmmoo yenn jëf yi jëf yi nii ca xam nga dafay am yoo xamante ne moom mënoo koo xamee mënoo koo mëne ci téléphone rek faw jëf am ci aw yoon léeg-léeg damay faral di wax ni yàgg seetaan kuy féey ci ndox taxuta mën a féey taxuta mën a féey yàgg seetaan kuy dawal oto nii rek taxuta mën a dawal ca wanuñ la ko mooy am na mbir yoo xam ne seetaan kese seetaan du ko lijjanti faw ci dund gi nii nga di ko mu maarasa di ko jëfandikoo léegi nag xale yi nga xamante ni wala ba ci mag ñi nga xamante ni dañ koo def comme dund comme dund day mujj dañuy mel ne ñi nga xamante ni drogue dañoo yàgg jëfandikoo ay drogue euh, ba seen yaram léegi jël ko mu am beneen risque yi tamit nag rawatina ci ndaw ñi mooy ni sa identité sa aada ak sa cosaan ak sa pas-pas boo yéexee da nga ko ñàkk ndax àdduna bi dafa ubbeeku yeneen aada cosaan ak culture mooy huwiya saqaafiya da nga koy daal di ñàkk ñàkk goo xamante ne ubbeeku gu ëpp gi moo la ko waral ca saytu wuñ la gunge wuñ la gunge la rawatina jumtukaay yi bu nekkee ci loxo yi koo xam ne àll wu ji soriwut lool ubbeeku wut lool ci àdduna ji daanaka du ca mën a def farata lool loolu nag moo tax xale yi léegi ci seen dundiin dañu mujj di dox doxin woo xamante ni day jaaxal sax mag ñi ak yenn waajur yi xamuñ kañ la fi joox si ak lu ko fi indi fekk jumtukaay yooyu moo ko fi moo ko fi indi moo tax ngay gis ñun ci suñ aada dañoo fonkoon kilifa fonk mag waaye ci biir internet bi ëtt boobu nekk ci jaww ji ku ciy dugg danga gis li ñuy wax kilifa yi fu mu nekk nii maara day weñ wu ci taxaw tarxees ca moo ne ñañ koy wax amaana sax yëguñ ko ndax nekkuñ ci ëtt boobu ñoom ña ngi ca beneen ëtt waaye euh, nit ñi ñi ngi liggéey liggéeyu max ci biir askan wi maanaam di yàq yàqin woo xamante ni ci biir ëtt yu mag yooyu référence yi modèles yi royuwaay yi léegi ñi ngi leen di néewal doole di gor ci suuf buñ ko saytuwut fa ñuy mujj mooy léegi kenn du doon kilifa kenn kenn du doon kilifa kenn toppi aadaa ki cosaan mën naa tax rek ñu naan diw mooy sama kilifa mooy sama nangam waaye ci dëgg-dëgg boo ko toppee kenn du kilifa kenn loolu nag baaxut cim réew rawatina réew mu mel ni Sénégal gi nga xam ne loolu moo ko aar ci lu bari ci lu dal yeneen réew yi ci ay jéeya am kilifteef moo ko waral waaye li ñuy tudde al marjiyaati diiniya wa sultaati dunyawiya yooyu ñu ngi koy màbbu ci di leen wax yu doy waar di yàq seen der ci anam boo xamante ni Euh, dafa dafa dafa ëpp ci loolu li ko waral rek mooy fii neexut a saytu toog ci sëb néeg jaaxaañ ci sab lal di sànni ay kàddu yoo xam ne maara daytaale ca jàpp ne amoo ci rek benn responsabilité loolu ñàkk xam weesuwu ko ñàkk xam weesuwu ko te yàlla nag lislaam dafa digle ñu topp yàlla topp yonente bi topp kilifa yi atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum kon kilifteef dafa baax sëriñ bu mag bi nga xam ne dañ naan mooy suñ kilifa ñun taalibe murid yi moom dafa fonkoon kilifteef wormaal boroom xam-xam yi wormaal nit ñu baax ñi ba ci njiitu àddina yi da leen a wormaaloon donte wuute naa ak ñoom ay déggin mooy ne kon aw askan mun a ñàkk njiit mun a ñàkk kilifa kilifa nag faaw ñu toppatoo ko beneen bi ci des mooy xale yi ndaw ñi lu ci ëpp laay wax ndaw ñi waaye tegut teewut yenn mag ñi ñu ngi ci waaye ndaw ñi ñoo ciy ëpp ndax ñàkk ñor gi ak léeg-léeg euh, ñàkk taxawu gi encadrement bi moo tax lu bari di leen dal ci biir internet bi mooy ni dañuy dugg ci ay ay néeg xam nga neewoon naa leen kër gu mag la bu amee néeg néeg bu nekk la fa nekk xale yi danga ci gis ñuy dugg ci ay néeg yoo xamante ni àndut tab yar àndut ak teggin àndut ak jikko yu baax ndax la fay xew ca loola foofa ngay dugg laal gi rek laal rek moo ci des waaye image ak lépp lépp lépp comme ni muy amee ci bitti dafay nekk foofu loolu mag ñi bari na ñoo xam ne xamewuñ ko noonu waaye loolu mi ngi xew mooy ne kon seeni kër mi ngi yàqu ci xamuñ lu ko yàq fekk max gi ko yàq mi ngi ci biir kër gi waaye xamuñ ko xale yi tamit am na ñoo xam ne dañuy dugg ci ay réseau yoo xamante ni euh, réseau criminel lay doon shabakat ijramiya yoo xam ne ay def ko ti ñaawteef yu mag a mag yoo xam ne ñoom it dañuy nosu ci biir dëkk bu mag boobu ñuy tuddee internet dañuy nosu am njiit kenn ku nekk am luñ ko sant ci liggéey bi ñuy def ay yàqute yu doy waar mooy mooy la la cybercriminalité amaliyaat ijramiya fil internet yooyu xale yi dañ ciy tàbbi léeg-léeg yoo xamante ni du seen sax jublu waaye comme que néeg bu ne dugg ko ci biir kër gi amoo bàyyiwoo benn néeg da nga dugg ci biiram néeg ñu ne la ceex téye la fa day xiirtal tamit nit ñi ci wàllu ci biir néeg yu wuute yooyu may wax jouer carte loterie mooy loterie def ciy bare bare na xale yu koy def fu mu nekk nii ak mag ñu baree bare ñoo xamante ni seen dund gi yëpp ñu ngi koy passé ci ci carte ci carte boo xamante ni euh, ci nii nii ci biti nii ñemewuñ ko ndax aada ji mayewu ko diine ji mayewu ko seen wàccuwaay ci biir askan wi mayewu ko fañ bokk mayewu ko ñemewuñ ko doo leen gis mukk ñuy dem ci place fu ñuy jënd ay loterie yu mel na noonu te fekk ñu ngi koy def ci biir loolu li ko waral mooy jumtukaay bi jëfandikoo ko dafa yomb ba noppi dafa am sutura dafa am sutura loo xam ne danga koy def xaalis ba nga cay gañe ñu yónnee la ko ci sa compte yow yàlla ak ki ko séqal ñoo koy xam moo tax daanaka réew mi xale yépp ñu ngi kart ci ba wàllu yëgle yi dangay ngay dégg ñuy yoonal naan euh, lii nag mayewuñ ko ci xale yu am lu yées fukki at ak juróom-ñett waaye dañ koy wax nii rek waaye amul benn matuwaay daanaka buñ ciy jël xale yaa ngi carte carte yu metti ci biir di am xaalis kenn ku ne boo xoolee ci sa biir kër da nga gis ay gone yoo xam ne ci seen coleen ak seen doxeen ci wàllu koppar da ngay jaaxle fu ñu ko jëlee te yow joxoo leen ko xamoo sa menn mbokk mu leen ko jox loolu it lu mat a lu mat a xool la dëgg la am na ñu ciy commerce moom am na ñu ciy commerce di ci def ay business loolu am na ci waaye lii am na ci loterie nag al dafa dafa bon ndax yàlla da koo lënkaleeg sàngara ba noppi melal ni ko melal ko ni e, sobe la ci jëfi seytaane la ñett yooyu yëpp da cee daje innama alxamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuh kon lu bon la loo xam ne ni ko koy ak lu jumtukaay ba mën a demee képp kuy lotori ak jumtukaay boo mën a jëfandikoo alal joo ca am baaxut ca alal jooju mënoo caa def jaamu yàlla guñ nangu kon ñu ciy dundal seen njaboot wala ñu ciy def ay jëf yu am solo ci kaw ni nañ xam ni jëf jooja diisu ko nangu beneen mbir bi ci amaat tamit mooy dafa yokk dafa yokk suñuy charge financière xaalis bi maanaam suñuy na suñuy li ñuy dépensé par bis bu ci connexion bi wàllu yaansee dafay mujj dafay mujj diis ndax dafay mujj mook joxe dépense ñooy yam ci yow am na ci ñoo xam ne connexion mook dépense ñoo yem dépense dépense bi ngay jox soxna yi doo ko jëlal benn yoon ci tey naka noonu am na ci ñoo xam ne connexion bi mënuñ koo ñàkk benn yoon benn yoon kon loolu dafay mujj nekk takaalif maaliya yoo xamante ni dafay wàcc ci kaw nit ki eh, su ko defee nag loolu bu fekkee ne nit ki amut liggéey amut benn métier amut fu muy jëlee pexe moo fay sës pexe ya nag mën naa nekk ay leb mën naa nekk jël yëfi jàmbur mën naa nekk jouer carte mën naa nekk yeneen ak yeneen sutura soosu it mooy tax ak mën a mën a mën a tey euh, ñàkk mën a am connexion dana tax nit ki melowoo melokaan di jëf jëf ay jëfin yoo xamante ni euh, kersa sax maywut ñu di ko tudd ci barab yi ci ci yaakaar naa xam ngeen fi may xalaate kon yooyu lu mat di lu mat di bàyyiwaale xel la réseaux sociaux yi aussi tamit bokk na ci soppi jikko yi mooy dafay tax wuruj wuruj war wax lu du dëgg dafay gën a samp ay ranam ci biir askan wi ndax dafa gën a yomb dafa gën a yomb nga def ko ci anam boo xam ne kenn du la gis ngay wax lu du dëgg maa ngi barab sàngam nekkoo barab sàngam lii mooy sama photo ca fekk mën naa am du sa photo photo keneen la lii mooy sama photo nangame at laa am fekk foto boobu mën naa am fukki at ci ginnaaw nga ko defoon léegi say at weesu na fii sa melokaan soppeeku na yooyu yëpp ay xeetu profil ak xeetu nangam yoo xam ne dara du ci dëgg mooy yaa ngi trompé yaa ngi nax nax ki ngay waxtaanal te loolu ci xale yi la gën a ëppee chantage chantage nit daf ciy am séq ak nit ay waxtaanu biir néeg ngeen nekk ci ëtt boobu ba seeni waxtaan sori ngeen di jëflante ci anam yu bari bis ñëw ngeen ñàkk déggoo la nga ko yoreeloon ci ay photo ak i vidéo ki kàddu ak i audio nga ne ko danaa ko wàccee ci pénc mi pénc mi ñëpp bokk gis nañ fi ay kilifa yu mag ci biir réew mi ñu chantage leen bañ bañ dem kaso loolu bari na fi chantage maa ngi ak say photo maa ngi ak say audio boo defut nangam wala boo ma joxut nangam euh, ma wàcce ko ci ci biir pénc mi chantage ko mu ragal jox la li nga doon kii nga téye ko wala mu bañ nga nga insister mu bañ nga wàcce ko ci ëtt bi xaw yi suturaam yooyu yu yu yu mat di ki ci loolu dafa gën a dafa gën a tasaaroo loolu nag dafay tax kóolte gi ci diggante nit ñi day gën a wàññeeku ndax nit ki bu boobaakoon bu xamee ne loolu mi nga am ci pénc mi lum la wóolu wóolu lu ngeen jaxasoo jaxasoo dana am aw des wu muy bàyyi ndax dafay bàyyi waale xel ëllëg ca li ci metti mooy léeg-léeg da koy dégg ci ay kilifa yu mag gis nañ fi kilifa gi kilifa gu mag ci wàllu politique ci réew mi ca jamono yi tollee ci digg ndënd yi kilifaam ci wàllu politique da ko daa enregistré bis ñëw mu xëy xëy wàcce ko ci pénc mi ndegam ci niveau yooyu lay am asamaan nag ñi moo tax yàqute gi fi mu egg kenn xamu ko fu mu nekk nii fa ñuy mujj mooy ku diine yarut tamit àdduna yar la mooy foo toog da ne pat ndax da nga xam ne fi nga toog ci jamono bi nga fi toogee lépp li nga fiy def man mën naa am mu nekk ci pénc bi ndax léegi dañ koy def live direct loolu it am na njariñ ci beneen côté mooy ni ci ci wàllu kaaraange am na njariñ lool ndax bari na luy xew ci mbedd mi la tey indi ay firnde kenn ku nekk ci këram moo tiim xew-xew bi jël ko ci téléphone am yónnee ko ci loolu gis nañ Covid bi bi mu amee la ca xewoon ci tàmbali bi dooraate beeg nangam beeg yu mel noonu ni mu jàll ci réseaux sociaux yi tax na yu bari taxaw loolu bari na ay xew-xew yuy am ci yoo xamante ne la cay mus la cay aar askan wi mooy léegi kenn xamutut fu ñu lay filmé ak fu ñu la filmé wul kenn xamutut foo toog fu nekk xamoo ñu ngi lay enregistré wala déet ña lay filmé wala déet ndax uh, lu ne lu ne ci mën a am dangay ngay jékki ñu yónnee la sa photo ni la xoolal sa photo bi ca yow doo xam kañ la woon ak fan la woon ak ku ko jël loolu dafay mujj daanaka kaaraange gu ëpp gi dafay mujj juraat ñàkk kaaraange day mujj duutuñ wooloonte say kàddu danga koy sàmm bu yàlla taxut tamit yil la tax ak àdduna su ko defee ngay sàmm say kàddu xam ne kàddu goo mën a wax mën ngaa xëy suba fekk ko ci penc mi te doo xam ku ko génne ndax jamono bi ñu toog di wax ñay enregistré nga enregistré ña ngi filmé ña ngay filmé loolu lu doy waar la kon melokaan yooyu dafay gën a tasaaroo ci biir penc mi Euh, ca loolu baaxut cim réew ca day day yàq day yàq yoo xamante ne kii dégg nañ fi ay audio yoo xam ne dafa fuyute baatu fuyute fu mu nekk ni ci suñuy baat yi ñuy jëfandikoo la fuyut koo ko wax rek mu xam ko am na audio yu fuyute diw sàngam am na audio am na vidéo am na nàngama ak yu mel noonu yoo xamante ne doo xam la cay dëgg ak la ca du dëgg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni workat wor jikko la ci jikko jikkoy naafeq ñeenti jikko ñeenti melokaan yoo xam ne ku mu nekk ci moom jàppal ni doo genn wàll naafeq waaye naafeq piir nga ca loolu bokk na ca mooy wax lu amut bokk na ca wor ci buñ la wóoloo nga wor ca wor farewut kaw dara fa farewu dara yéesu ko ci ci nit wóolu la di la wax secret ngeen di toog di waxtaan waxtaanu biir néeg bu xóot fekk yaa ngi koy filmer yaa ngi koy yaa ngi koy enregistré beneen mbir bi ci des mooy ni euh, dafay tax léegi day nasaxal xel yi day nasaxal xel yi day tax léegi daanaka kenn du jàpp kenn jàpp dara fu ne numéro téléphone daanaka pour nga gis ku ci mokkal yu bari amatul yu ci bari dañ naan ba xaaral ma def ko ci sama répertoire boo amee dara lu la intéressé da naan xaaral ma capturer ko xaaral ma nàngam ko day mujj lépp ci sa téléphone day nekk ngay xaar di xaar fekk dara du nekk ci sa bopp. loo soxla da ngay lux luxi ci téléphone bi seeta eh, gis ko ndax jumtukaay bi moo bindoo noonu léegi kon day nasaxal xel yi day tax ndax xel yi daa jàpp di fàttaliku léegi dootoo ko mënati léeg-léeg da ngay nettali dara naan dafa mel ne man de ci internet bi gis naa daal loo xam ne xaw ma fan laa ko gisati woon loolu mooy lan mooy ni liñ lay tuur par bis ci ay xibaar dootoo xamati lan moo jóge fan ci ci biir yooyu doo xam li wér ak li wérul ndax dafa jafee vérifier kon day nasaxal xel yi xalaatin yi tamit léeg-léeg da koy tënk rawatina ci ñi nga xam ne seeni seeni eh, xamuñ niñ koy jëfandikoo bu baax a baax day wàcce niveau njàng mi xam-xam bi tamit da koy gën a wàcce léeg-léeg ci ñenn ñi ci ndaw ñi rawatina am na benn jàngat boo xam ne wane na ni ci biir élèves yi ak étudiants yi ñiy jëfandikoo ñiy jëfandikoo réseaux sociaux yi seeni résultat mooy yées ci lu tolloog téeméer bu nekk ñaar fukk 20 pour cent résultats yi da koy gën a bon ci xale yi boo leen den ñiy jëfandikoo réseaux sociaux yi boo leen dendaleeg seen moroom yi nga xamante ni duñ ko jëfandikoo ca ñàkk gee jëfandikoo yombut mooy ne léegi ñoom ñëpp ay àndandoo seen niveau yi day wàcc ndax bu fekkee day nasa xel-xel dootoo jàppati dara ca ba noppi dañuy am ay groupe ëtt bu yaatu boo xam ne ci la ñuy nafare nafar bi kenn nit ñaari nit mooy nafar ñi ci des di digloo mooy ne kon kooku mooy jàng ñi ci des jànguñ ak yeneen ak yeneen daanaka yoo xam ne dafay dafay yàq euh, euh, kii bi kon bu la fekkut nga am nga am benn wàccuwaay bi benn xam-xam bi eh, dafay daal di doy waar day yàq sunu làkk sunu kàllaama da koy yàq ndax baat yu bari da ciy joox si yoo xamante ni mësuñ ko woon a xam ci suñu ci sunuy kàllaama ci loolu moo ko fi jëfandikoo ndax communication bi am na ci yoo xam ne kàddu la waaye am na ci yoo xam ne ay signe la ak i symbole ay remose ay signe la ak i symbole moo tax gis ngeen message yi ñuy yónnante sax yu ci bari doo ca wax wax ju egg doo ca wax wax ju egg ay symbole ngay jëfandikoo rek ay loxo buñ tàllal ak tàccoog néeg nàngam yu mel na noonu ay junju yoo xam ne ay rumus la tàyyi ñoo wax léegi daanaka tàyyi nañoo wax amatuñ wax ji amatuñ jotu wax wax ju egg amatuñ jotu wax wax ju egg ci yooyu rek ngay ngeen di gis su ko defee ay rumeurs yooyu dañ ko installé ci biir dañ mujj dangay mujj kee benn audio boo ko doon diglu boo ko xoolee bu dee ñaari minutes rek sëw fit daanaka danaan tërët ndax da ngay jàpp ne amoo temps diglu ko vitesse nga koy digloo yokk vitesse bi kon day mujj daanaka doo xam ci ban doxin la ñuy doxee kii ci baat yu bees yooyu rek yoo xam ne moom ñëpp ko ñëpp ko xamandoo ci ñu ngiy jëfandikoo aajowul jàng ak ñàkk jàng baat yu bari yu wàll yaan suñuy wax suñuy wax statut kooku fi xamul bloqué ajouté retire groupe ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni euh, transféré capturé profilé partagé yooyu ay baat la yoo xam ne daanaka aajeetul jàng partagé ma loolu transféré ma ko retiré ko bloqué ko nangam ko daanaka la nga xam ne boo xamul nit ki da nga naan kii àll wu ji sori na lool fekk jàngu waaye dafa am culture domaine bi mu nekk. ba ñuy jàng sax léeg-léeg xale bi jàngut dañ leen ciy wan ay mbir yu sew sewaan yoo xamante ni ki mbiru technique kese la loolu nag xale yi dafay mujj loolu nekk seen yitte ba farata duutuñ ko mën a tee def kon ngir euh, sàmmonteel waxtu wi dañuy tëj rek wax ni jumtukaay yi xéewal la gu ñu yàlla jox ci àdduna waaye xéewal gi nag dañoo ko war a rafetal niñ koy jëfandikoo ngir mu mën ñoo jural njariñ ci àdduna jural ñu ko ci àllaaxira ni ki ay jullit ndax jullit bi lépp lu muy def ci àdduna war na caa bàyyi xel ni àllaaxira danañ ko ko laaj moomut boppam de danañ ko ko laaj àllaaxira ndegam ay njuumte boo ci duggee fii ci àdduna ci réseaux sociaux yi yoon jàpp la asamaak yàlla yàlla nag daal yàkkamtiwul moo tax euh, lépp lu ñuy gis wala ñu koy dégg wala ñu koy yëg yooyu yëpp yàlla dañu koy topp ëllëg inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhum masula loolu nañ koy bàyyi wàlla xel ci jumtukaay yi ñuy seet liñ ciy def ca xam-xam saxal na ni rawatina ojo yi euh, vidéo yi xam-xam saxal na ni lu bari ci li nit di xam bu doon téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci image lay jaar juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay ay vidéo ak image ci lay jaar li nit ki gis moom lay gën a jàpp ci li muy dégg eh, ci li muy dégg kon nañ gën a sàmm xale yi li ñuy gis ak li ñuy seetaan ak li ñuy yónnante ci suñu biir kon daal mën nañoo wax ni jumtukaay la xéewal la waaye nañ ko jëfandikoo ci topp yàlla ci def lu baax ci sellal nañ ko jëfandikoo tamit ci yokk suñu xam-xam ak yokk suñuy expérience ci dund gi ak gën a rafetal suñuy jikkoo waaye ci biir jëfandikoo gi nañ ci ànd ak éthique mooy jikko ju rafet ci jikko yu rafet yi bokk na yi ci jiitu mooy kersa ñuy am kersay xool yenn yi am kersay diglu yenn yi am kersay tara eh, eh, eh, tasaare yenn yi suñu digg ak suñu borom ak suñu digg ak suñuy nawle suñu doomu aadama yi ak suñu digg suñu njaboot ëllëg woy wi ñu fi bàyyi ëllëg loolu nag waxuma la mbugal mi ci yàlla tëkkoo inna alladina yuhibbuna an tachia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alimum fi dunia wal axira am na ci mbugal yoo xam ne yàlla du ko xaare alaxira kon yooyu nañ koy bàyyi waale xel yàlla nag ni mu ko wax wallahu yaalamu wa antum la taalamuun ca yàkkamtiwut kon man na maa wàcce foofu kàddu gi di jégalu bu baax a baax xaw a yàkkamti moo tax daanaka ñu xaw koo baral nii wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf inspecteur Cheikh Mbacke Niang ci waxtaan wu am solo bi mel na ne nekk gi mu nekk inspecteur ak jàngalekat feeñ na ci bu baax a baax a baax ndax temps bi ñu ko joxoon tegu ci benn simili sax fexe na ba liñ ko joxoon mu jàngat ko njàngat wu am solo jox ñu yuq yi nga xam ne moo ñuy gën a mën a jariñ buñ ko yóbbuloo kon noo ñu koy sant bu baax ci taxawaayam di ko ñaanal sunu borom dolli ko tawféex ba li muy yëngu ci wàllu xam-xam sunu borom di woy di ko ci defal njortu lu kawe lool. mel ne lim doon waxtaanee rek mooy ni ma ko junjee woon jumtukaayu jokko bees yi ak jeexit yi nga xam ne mën nañ koo def ci soppi jikkoy nit ñi ku déglu waxtaanee mi da xam ne jumtukaayu jokko yi mënut ñàkk ndax yàlla daa bind doomu aadama ngir mu jokkoo ak ñeneen. waaye soppiku yi nga xam ne tamit indi ko ci jukko yi nit ñi gis nañ ko bu baax a baax a baax bokk na ci lim ci mujj rek mooy soppiku ci wàllu waxin soppiku ci wàllu jëfin ba ci soppiku ci wàllu xalaatin ak soppiku ci wàllu doxalin kon loolu mooy tënkuk waxtaan wi mu ngi ko tàmbalee nag ci indi jokkoo ci jëmmam mooy lan mu wax ne suñu borom dañoo bind bind doomu aadama moom rek mënut nekk moom dong kon il faut mu am ñum jokkool moo xam dafa wax gis ba ci dafa sol sax ba ci couleur lu ñaan naan wergo loolu rek jokkoo la ndax ku ne xam na ne couleur bu weex am na lu muy wax ci ñu ko xam couleur bu ñuul ku amul ci yenn culture yi ku amul naqar moom ngay sol kon ba ci couleur sax wàllu jokkoo la kon nit ki mën nañ ne faw day jokkoo ak ñeneen ñi du nit sax ba ci yamb yi wax nañ ne dañuy jokkoo bu ñu gisee lem wala fenn yooyu yëpp kon indi na ci lu am solo mu joxe ci nag misaal mu njëkk muy jokkoo googu nga xam ne suñ borom def na ko laataa muy bind doomu aadama ni mu doon jokkook malaayka yi ak jinne yi xamal leen li ñaan informé xamal leen li nga xam ne dana xew laataa mu ci muy bind doomu aadama waaye it ci niki noonu ci jokkoo googu beneen wàllu tomb bi muy influence ak manipulation yi nga xam ne mën na koo indi ba tax nit ki mu jëf lenn mbaa mu def ko surtout manipulation bu bon ni ko seytaane defee yonent yàlla aadam ba ñëw wax ak moom ci loo xam ne du woon information bu baax bi fexe ba yàq ko ba mu wàcc ci kaw suuf ba lekk euh, garab googu loolu nag li ñu ciy déggee mooy nit ki kon daa war a jokkoo koo xam ne ñoo bokk ay pas-pas xëy na wala buy jokkoo kenn tamit bu mu def lépp lu mu ko wax rek mu jàpp ne noonu la ba du ko manipuler wala yu ni demee kon misaal mi mu ci indi mu am solo la moo xam ne yonent yàlla aadama li soppi jikkoom ba tax mu xëtt ndigal loolu suñu borom ginnaaw donte ginnaaw bi tuub na ko loolu mooy jokkoo koo xam ne ku ko influencé la te information yam ko jox baaxut noonu kon la indee waxtaan wi ba ci nag fi ñu koy tënk rek mooy influence yi ak manipulation yi ci yan ak yan ak la war a am ci lañ mën a am ci suñu wàllu dund tënk na ko daanaka duñ ci jaaraat waaye ngir njëkkanteeg waxtu wi rek mën nañ ko tënk ci ne ci wàllu diine mën nañ faa gis manipulation yooyu ak ak jeexit jooju nga xam ne mën na koo def ku ne xam na ne euh, ci réseaux sociaux yi nit mën na cee jàng naam lu mel ne suñu waxtaan wi ñu ngi koy jàllale fépp ci àdduna waaye it nit mën na ciy diglu ay waxtaan yoo xam ne ka koy wax bokkut ak moom pas-pas mu influence ko ba soppi euh, pas-pasam moo tax même xale yi jàng tamit nekkul ne masala moo gis rek ci googul wala moo gis ci réseaux sociaux yi rek da nga koo war a jël ndax ki koy wax est-ce que yéen a bokk mazhab bu ngeen nekk waaye est-ce que bokk pas-pas ci wàllu diine kon ba ci wàllu diine kon ñi ngi gis nit ki di soppiku ci jikko nekkoon lii ba caaga mu nekk lee te léegi li ko waral rek mooy ni muy jëfandikoo réseaux sociaux yi moom lañu waajalut bu baax a baax ni ki noonu ba tey ci wàllum euh, doxinu àdduna muy politique moom mën naa ne influence yi ak manipulation yi daanaka foofu la ëppee ku ne xam na ne suñu jamono ju mujj ji Euh, xale yu bari am na ñu leen di influence ci wàllu réseaux sociaux yi ci wàllu politique ba nga xam ne gëm-gëm yañ yoroon euh, bu njëkk ba ci wàllu politique bokkut ak li ñu yor léegi seeni jikko soppiku na lool boo xoolee événement yi mu yi fi am loolu war ne ko bu baax xale yi ni ñu amee conscience ci ni ñuy saytoo réew ak ni ñuy voté ak yooyu loolu day wane ne réseaux sociaux yi mën naa influencer bu baax a baax a baax waaye it mën naa influencer wala manipuler nit ci wàllum loo xam ne day tax ba euh, xalaat yi mu amoon xëy na ci gis-gis ci politique lu mel ne ndigal waratuta am euh, sëriñ si waru ci ñoo nangam dañoo war a nangam loolu tamit mën naa xaw a am ay ay yàqu-yàqu yu mu amee foofu kon ñu maytu ne lépp loo gis rek ci politique nekkul noonu waaye da ngaa war a segg mbir mi ba xam la cay baax ak la nga xam ne moo ciy bana laal sa pas-pas surtout ndax dem bay wax sëriñ si di teg si ñoom ay kàddu yoo xamante ni dañ laa manipuler rek yow te kii manipuler ak kii influencer mën naa am la muy wax du ko gëm mën naa amit du ku am solo koo xam ne li mu la wax rek danga ko war a def kon yow da ngaa war a xam lan ngay diglu saa yoo digloo information ci politique wala ci diine wala ci man doon nga xool la ca baax ni ko suñu borom waxee in jaakum faasixum bi naba'in fatabayyanu kon foofu am na ci ay mën nañ cee wax lu bari loo xam ne ci lu mu soppee dunduk doomu aadama yi la rawatina ndaw ñi ci wàllu pas-pas ak diine loolu moom sëñ bi indi na ci yu am solo yoo xam du jar ñu ci kii waaye daal ñu bàyyi xel ne nekkul ne lépp lu ñu la jox ci réseaux sociaux yi rek dëgg la yenn saa ñu indi la wax jukki ci waxi mun Muntaxa wala kenn dara lu mu waxoon feneen ñu indil la ko monté ko ak beneen photo politicien daan ne moom lay waxal yow nga gëm ko xas ci sëriñ si fekk na sëriñ bi sax waxut ak moom kon ci wàllu information yi da war a xool ñan lañ ñuy manipuler ak nan la moo lay ndax liñ naan fake news dafa bari lool ci jumtukaayu jokko yi ba ci liñ naan deep muy lu xew nga xam ne man man nañ maa jël indi samay kàddu ma toog mel ne maay wax fekk ne fekk ne waxuma loolu am na ci réseaux sociaux yi mu naan deep fake kon loolu nañ ko moytu bu baax nekkul ne lépp loo gis rek ci groupe wala lépp loo dégg ak kilifa wax ko rek sëñ ba moo ko wax ba ci sax yeneen homme politique yi nekkul ne lu ñu wax rek li ñu naan deep fake loolu am na ci bu dee ci wàllu jàngit indi na ci lu am solo ci wàllu nan lañ ko mën a mën a mën a saytoo ci wàllu réseaux sociaux yi ni ki noonu wàllu économie wàllu dundinte nit ki nay yàq ay diggante yoo xam ne du dara lu dul nit ki réseaux sociaux yi moo ko influencé waaye fekk na dañ koo manipuler rek waaye lañ ko wax sax nekkul ne dëgg-dëgg loolu euh, loolu loolu moom moo wér kon daal fi mu mujj rek mooy nit ki moo war a waajal boppam xëy na rek xam ne réseaux sociaux yi paaka la mën naa lore waaye mën naa jëriñ yow nga jël ci la lay jariñ nag te bàyyi la nga xam ne moom moo la ciy lor te nga xool tamit lépp lu ñu la wax rek nekkul ne loolu mooy dëgg suñ borom avertiroon nañu bu yàgg ne bu ñu la indilee ab xibaar ci faasix sax la waxoon moom waaye fi ne nii kuñ la mën a indil xibaar rek na ci bàyyi xel baax a baax xool li ngay partagé tamit am na ci solo ndax fi ne nii même ci entreprise yi nga xam ne dañuy jël ay nit dañuy dugg ci profilam réseaux sociaux yi xool moom ban genre nit la lan lay influence moom lan lay partagé est-ce que ku wax lu ñaaw da koy partagé wala ku wax ay violence ay violence da koy partagé ba ci yenn réew yi may ay visa léegi dañuy xool nit ki ban profil la yore bu ñu dugalee ay données rek danañu xool moom ndax mi ngi ci réseaux sociaux yi lu muy partagé ndax ay xeetu discours haineux lañ koy tuddee mooy yoo xam ne day day day saaga wala yooyu ñu ma xool ba xam man ba moom ban genre nit la ñu man koo may visa wala dara kon nekkul na ci réseaux sociaux yi loo ci gis rek da ko war a partager wala loo ci gis rek da ko war a gëm waaye da ngaa war a xool ni nga koy utiliser bu baax a baax sëñ bit ñu xool ni ñu koy gën a waggare xool ne képp ku wax rek nekku ne la mu wax ci sëñ ba loolu laa war a def waaye mën naa am dama bëgg manipuler waaye mën naa am damaa bëgg influencer nga mën a man nekk nag koo xam ne damaa war a influencer nit ñi waaye du ma nangu kenn di may influencer kon loolu mooy solos waxtaan wi ni ko sëriñ bi indee am na solo xëy na dañoo doon jëkkanteeg waxtu bi rek ak di ci nam na bi waaye li mu wax leer na nañ ñi kon jërëjëf almufattish Cheikh Mbacké Niang ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ne amal na njariñ bu baax a baax a baax nit ñi rawatina xale yi ko doon ak mag ñeeg ñëpp rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la taw feex bu baax a baax kon noo ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo teewoon rawatina suñu mbokk yi jàngalekat yi nga xam ne hum jaa'u min misr li yutaabiu haadihi al muhaadara al xayima kon suba incha allah moom it am na weneen waxtaan wuy am muy alfatawa ñi ciy ànd ak uh, borom xam-xam bu mag muy sëriñ Cheikh Bousso uh, sëriñ Cheikh Bousso Assane imam di koo xam ne ku ñu xam na ci wàllu fatwa rawatina ci wàllu fiq ak yu ni demee ak mbooleem fànni xam-xam yooyu incha allah keneen koo xam ne tamit bëgg naa am ay laaj yu muy def moo xam ci waxtaan wi ak yii di ñëw wala ci gàggante gi mën naa uh, yónnee ay laajam ci numéro bi 78 689 28 28 kon noo ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di wàcc suñu kàddu foofu di leen dox daje dox daje incha allah ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa